والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة السيق يحضر لنا في هذا المحضر ولتحتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر démb moom ñu ngi taxawoon ci Makka ak ni meloon bu njëkk ak ni mujj itam mel ni meloon bu njëkk moo di dafa woon nga dara nekku fa muy àll kerte ndeng mu soob yàlla mu def ko muy àll bu naat soxal ca lépp gàncax def fa lu ne ndox mi tuuru ci dëkk bu mel ni Taayif du Makka ci boppam mais ci Taayif benn quartier la ci moom léegi bu ko defee nag lépp loo fa bay mu ñor muy sedd bu tàngaay bi ñuy waa Makka di fa fiixlu ji seen mbéy ma yépp ci gox yooyu la nekkoon ni ki Saalum mel ci gerte rek tey ci senegal ba ko defee nag ba yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ak ñoom ci melo woowu keroog bañ fexee ba noonu yonent ba génnee ko rek yonent bi itam dafa mer ñaan leen yàlla ñaan yàlla googa indi leen beekoor goo xam ne dem nañ ba lekk seen xaj yi ak seen muus yeeg weteñ yi ci àll bi yépp loola mooy li leen daloon <coughs> booba ci lañ taxawoon tey nag ñu dale ci fa kazzabuuhu wa laqad wa laqad jaahum dikkal na leen rasulun ab yonent boo xam ne minhum ci ñoom la bokk ñoo ko jur ñële ay baayam lañ ñii mu bokk ak ñoom baay ñii mu bokk ak ñoom xaskan ak lépp ñoo ko bokk fa kaddabuhu ñu weddi ko ba mu indee téereb yàlla bi fa axasahum mu jàppale na xiif ba mbugal moo xam ne xiif la ak ragal xam nga waxoon nañ ne sécuriser nañu dëkk ba ba luy yàq guerre mas fa am xare mas fa am waxum ñoom fekk te ñoom sa zaalimu na ñooma di wéy tooñ ba mbugal di ñëw ci ñoom tooñal googu moo tax mu wàcc ci ñoom fakulu lel waaye na ngeen lekk mimma razaqnaakum ca la wërsëgënal na leen ko allahu yàlla la leen yàlla may comme wërsëg lekk leen ko xalaalan te mu dagan la ca dagan lañu wax tayiban te jig leen itam muy lu teey alal lu mu bari bari boo ko moomul daganul boo ko fàggoo fàggoo ci anam gu daganul daganul carte jaay ñoll sàcc yépp yu mel noonu boo ko ci amee boo ko lekkee itam daganul ñam bu mu mën a doon su ñoree rek dagan na ba mu des bu la jig bu la jigul am boo xam ne boo ko lekkee dee ci saasi kenn lekk loolu ko yàlla mu ne li ma leen wërsëgal am na ci yoo xam ne dafa dagan am ci daganul am ci yi leen jig bu ngeen ko lekkee des am ci yoo xam ne jigu leen bu ko defee lekk leen yi dagan te mu jig leen washkuru te itam ngeen sant nicmatallaahi xéewali yàlla bi nga xam ne moo leen xéewale ñam yooyu le in kuntum ndegam nekk ngeen taabuduuna di jaamu iyaahu moom su fekkee yàlla ngeen di jaamu daal def leen li ñu leen wax rek waaw loolu moom ñëw na ay yoon ci alquran innama xarama xamal ne xaramal na kan yàlla aleykum ci yéen ñile almaytata médd kon médd daganul teeyul wa ak dereti buf nga bu fekkee ne rey gàtt bi dagan na boo ko ne tis deret jooju di tuuru rek ak lu gàtt bi mën a doon jur gi lu mën a doon daganul teeyul itam wala xamal xinziiri yàpp mbaam xuux teeyul daganul wa maa uhilla li gayrillaahi bihi ak lépp loo xam ne bi ñu koy loj dañ ca tudd ko dul yàlla yéene ko tudd jaamoo ko dul yàlla daganul fa ma ne du turraa koo xam ne nag dafa forcé xayra baaxin te bew taxul muy ko lekk wala xaadim du ca gën tooñ ba jéggi dayo fa inna laa yàlla xafurun jéggalaa koon la mu mooy yërëm mboolem bindeef yi ko sob ca yàlla àlaxira wala taqulu bu leen wax lima ñeel loo xam ne tasifu dafay mellal alsinatukum seeni làmbiñ alkasi ba muy fen ne haada le xalaalun lu dagan la wa haada xaraamun lu xaraam la fekk yéen a koy xaramal lu dagan mbaa ngeen daganal lu xaram loolu bu leen ci dara fekk li taftaru pour ngeen duural alallaahi waral yàlla ba nar ne yàlla wax ne lii dagan na mbaa lii xaram na fekk yàlla waxut benn ñaar yooyu bu ngeen ko defee rek duural ngeen yàlla ay fen yoo xam ne yéen a ko fen ba nga mu ngoog yàlla moom loolu yëpp moo ñu ko indil ci baaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ñëwee lim ñëwee ñëpp weddi nañ ko ñoom waa Màkka te yàlla leen defaloon sécurité wax nañ ko ak dund bu law a law bu ko defee yàlla itam fayee leen ca mbugal mu metti ndeg tooñ gañ ko tooñ ba mu leen indilee nag wërsëg def leen lekk leen li teey te dagan li mooy li la jig bu ngeen paree ngeen sante ko yàlla mi nga xam ne moo leen ko jox su fekkee nangu ngeen ay jaamu yàlla kuy jaamu yàlla moom nangoo doon jaamu yàlla lépp lu ko yàlla jox ci xéewal bu pare dina ko sante yàlla yàlla moom yi mu araamal mu ngi nii muy ko wax bokk na ca medd malawoo am gàtt laag nag laag gëlëm laag yi ñuy lekk yëpp lu mu ci mën a doon su meddee fekk dee na rendi woo ko rek nu mu mën a mel xaraam na dereti buf nga xaraam na boo rendee deret ji njëkk génn yàpp mbaam xuux xaraam na ci gëm yàlla lépp loo xam ne bu ñu koy rey dañ koy tudd ku dul yàlla xaraam na ci jullit koo xam ne kii nag yi ñu xaraamal yépp xiif daf ko jàpp mu dem ba nga xam ne lii bu ko lekkul rek dee su lekkul meddi mi la dee bu ko defee rek may nañ ko mu lekk ca ndax bu boobaa bu paree rek yàlla ku yërëm ndax xiif ba mu nekkoon xettili ko waaye jéggal ko itam bakkaar yi ca yi aju wala taqulu bu leen mas a wax li ma tasifu ci li seen làmmiñ di melal rek alkasiba ay nar ne haada yi xalaalun lu dagan la wa haada lii la xaraamun lu xaraam la li taftaru pour ngeen dural allaahi waral yàlla alkasiba nar inna na naka ñi nga xam ne yaftaruuna dañuy duural alallaahi waral yàlla alkasiba ay fen laa yuflihuna ñooñu du ñu mës a texe mukk yàlla képp ku ko fenal ba dem ci mbaa nga yóbbaale ci ay nit texe moom dootoo ci jaar mukk ma taawoon mu di yóbbal rekk xalilun bu néew ci àddina lu ñu leen mën a jox ak lu mu neex neex lu mu rafet rafet naxukaay bakkan rek la ci àddina wala hum ñeel na leen fil aaxirati wala hum ñeel na leen azaabun mbugal alimun mu di aji tar ca alaxira képp koo xam ne daal yii yàlla tere jaar nga ca rek nekk ca ba dee dajeek yàlla ah, mbugal metti moom rek ca nga jëm waala lesina war na ñi nga xam ne haadu ñoom yahuudu nañ doon ay yahuud xaram naa xaraamal nañ maa qasas naa li ñu nettali aleyka ci yow min qablu bu njëkk am na lu mel ni ki we borom we yi nga xam ne yàlla moo ko xaraamaloon wax na ko waa la si na haadu xaram naa kulla zi sufar borom we yi lépp loo xam ne dafa am we ñoom xaraamal nañ ko ci ñoom nag yeeg gëlëm yeek xar yeeg bay yeeg yooyu yëpp di am ay we di sëpp buur yàlla ne wa naa mu tooñuñ leen walakin waaye kaanu ñoo nekkoon yaslimuuna anfusahum di tooñ seen bopp tooñ seen bopp ci bàkkaar teg seen bopp toggoo ko ba mbugal fekk leen ci lépp leen dara ñoom la su may na rabbaka topp borom sax seen a ñeel ñi nga xam ne amilu jëf nañ ak asuu a bokkaale ak yàlla mooy ñaawteef boobu def nañ ko bi jahaalatin ci réer moo taxoon ñu def ko su mataa boo gannaaw ko ñu xam ne dañoo réeroon rek ñu dellu gannaaw tóob min baadi zalika ci ginnaaw bañ bokkaal bañ booleeg yàlla ak dara wa aslahu te ñu yewenal seen jëf ca ginnaaw bañ tuubee ba pare inna rabbaka naka sa borom min baxdiha ca ginnaaw a tuub góogale la xafuurun jégalaa koon la lañ defoon yépp rahimun yërëmaa koon la ca lépp lañ defoon waaw yàlla daal ñi nga xam ne boole nañ kook dara mooy bokkaalekat yooyu nekkoon ca Makka contre bi di jaamu xiram yi réer a taxoon ñu koy def ak fu ñu mënatee nekk nag ci àddina ba jamono jii ñu toll képp koo xam ne da ngay jaamu réer rek moo la ci dugal boo demee ba gindeeku ñëw da ngay tuub dellu sa borom boo tuubee lépp loo defoon rek yàlla daf koy jéggale ba pare boole ci ñiw yërëm ëllëg yowmal xiyaam ne Ibrahima ñëw na ci solo yonte yàlla Ibrahima kaana dafa nekkoon ummatan di njiit moo xam ne xut wala woon di kuy jiite di jiite nit ñi ko topp mu boole mbooleem xeetu jikko yu rafet yépp xaanitan di ko doon kiy topp yàlla doon topp li lay ñeel yàlla fan di aji jeng jëm ci diine ju jub bàyyi lépp luy diine ju jëng moom noonu la meloon walam yëkku mastan nekk moom bokk minal mushrikiina ci bokkaalekat yi Ibrahima loolu la ko yàlla seereel waxtu yàlla tuddee Ibrahima rek dana ko dëñloo ci bàkkaar wax ne ma masta bokk ci ñuy def bàkkaar àddina bi ba mu jeex masta setal kenn ci bàkkaar lu muy Ibrahima moom xut bu tawxiid la woon du wax mukk mukk lu muy tawxiid ndax moom moo waxoon ne fa innahum adduwun lii illa rabbil alamin di ngeen di jaamu yéen ak seeni baay ñoom ñépp samay noon lañuy doon ba mu des yàlla kepp na ko jekk Ibrahima wéetal yàlla mooy mbiram moo tax fu ko yàlla tuddi rek génnee ko ci ñiy bokkaaleeg yàlla moom daal xut la woon boo xam ne yàlla rek moo ko doyoon ar rasulu sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullu nnaasi yaxtaajoona li shafaati xatta ibrahima alxalil yonent mu ne képp kenn ku mën a doon rek soxla na sama rëmm keroog yowmal xiyaam même yonent yàlla ibrahim ca ngay xamee maqaamam yonent bi ni mu toll ibrahim liñ koy dañal ci shirk yépp mu nangoo jàmm yàlla doon njiit baax am jikko yu rafet yi yépp teewul mu ngi yaakaar rëmmam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kenn mënu ko bañ a yaakaar shakiran ibrahima dafa nekkoon santaakoon li an'am yi xéewal yàlla yi tabaahu yàlla itam tànn ko wa daaw jubal ko ila siraati mustaqimin teg ko ci yoon wu jub wa aataynaahu ñu dikkee ko fi duniyaa ci àddina bi le xasanatan aw tagg wu rafet ci mbooleem borom diine yi moo tax ñépp di ko xëccoo wa innahu te moom fil aaxirati keroog alaaxira la min as-saalihiina dana bokk ci ñi gën a baax ci nit ñi nga xam ne seen daraja daraja yi kowe lay doon ci aljanna summa ginnaaw ga nag aw xay naa ñu wax yu ilayka ci yow muhammad alayka salaatu wassalaam an ne ittabi na nga topp millata ibrahima diiney ibrahima yonte yàlla ibrahima xanifan muy diina ju jéng-jéng jëm ci njub sori lu ñuy tuddee shirk bokkaale wa ma kaana moom Ibrahima mas ta bokk minal mushrikina ci bokkaalekat yi loolu baamuwaat na ko ndax yahud ak nasaraan ñoom ñépp dañ wax ne diine Ibrahima ca lañ ne te ñoom ay bokkalekat rekk lañ bu ko defee nag yàlla ne Ibrahima mas bokk ci ñuy bokkaale kon ñoom bokkuñ ci innama juila xamal ne dañuy def daal as sabtu bésu samedi bu ko defee alal desina ci ñi nga xam ne ixtalafu wuute nañ fii ci moom samedi yi ñiñ ko defal dañoo wuuteeg yàlla ci ndigalam màggal nañ samedi jox ko ñoo xam ne dañu wuuteeg yàlla ci ndigalam yàlla dafa digle digaloon ñan yahud yi ne bu ngeen liggéeyee samedi ba dimanche ba alxames ngeen wàcc ajjuma na ngeen toog noppalu def ko muy seen feet ajjuma moom la yàlla tànn muy feetu mbindeef yi ci kaw suuf yépp moo gën a bark ci bés yi yow dina déedéet ñun duñ def loolu ñun daal bés bi ñu tànn pour noppalu ci mooy bésu samedi bi nga xam ne yow ci nga noppalu bi nga liggéey sa liggéey ba pare ndax wax nañ ne yàlla mu ngi commencé bésu ahad muy dimanche bind mbindeef yi moo tax ba léegi sax nit ñi ci bésu sanc bésu dimanche lañuy ñuy sanc seen kër yeeg di ci commencé seen mbéy mi moo la àllarba moom nag dimanche la commencé woon ba ajjuma ca ngoon samedi bindul dara ñu ne ko nag bés boobu nga xam ne defoo ci dara mooy sa feet ñun feet boobu lañuy ñuy jël kon ñoom bañ nañ ne duñ topp yàlla yàlla na jël leen kon samedi way na rabbaka naka sa boroom la yaxkumu dana àtte baynoom ci seen diggante yowmal qiyaamati keroog bés penc bi ma kaanu ca lañ nekkoon fii ca moom yaxtalifuna di wuute lañ doon wuute yëpp keroog yàlla koy àtte bés penc dana leen ko képp koo xam ne toppoon nga ko dana la fay fay ak sa topp nga ko toppoon ku ko mooyoon itam dana la mbugal mbugalam mooy ga nga ko mooy xotti soorma ba ñëpp yëg ko loolu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne nahnu al axiruuna assaabiquuna al jumaat huwa jumaatu wa gadan lil yahud wa baada gadin lin nasaara ne ñun de ñëw fi mujj ñëw waaye ñu ñoo raw ñoo xas ba jiitu ndax tey jële di àjjuma pour ñun lañoo ko moom suba samedi la yahud yee ko moom gannaaw suba Euh, nasaraan si la ñoo ko moom mooy dimanche keroog ba mu ko yóbbu si àjjuma la woon bés bi nag lu gën ci bés yi yonent koy wax xayru yawmin talaat alayhi shams yawmul jumaati fiihi xuliqa aadam wa fiihi uhbita wa fiihi tasawaja hawa wa fiihi maata wa fiihi taqumu saaha wa fiihi saatun laa yusaadifuha abdun yusalli yad'u llaha illa stajaaba lahu lahu mu ne bés ba bés bi gën ci bés yi jant di tiim yépp daal ñu ne ah ne mooy àjjuma lu tax ca lañ bind suñu baay aadama ca lañ ko wàcce it ca la ca lañ ko may xawaa soxnaam sa ca la faatu itam ca la bés penc di taxaw bés bi yàlla di rek le jaam ñépp waxtu wañ di rek le jaam yi itam bés booba la bépp jaam bum tombeet nga toog di jaamu yàlla di ca ñaan lépp loo ñaan rek yàlla nangul la ko loolu yonent moo ko jàngale saatul istijaabati fi yowmil jumaa waxtu ñu nangu ñaan ci yowmil jumaa nag boroom xam-xam yi dañ ci wuute am na ci ñuy wax ne <clears throat> noddu zawal gi la <clears throat> mooy noddu gu njëkk gi am ñoo xam ne dañ ni déedéet bu ilimaan bi toogee ci minbaram jamono boobu la fi ñaan rek yàlla nangul la ko am ñu ne diggante ñaari xutba yi su ilimaan bi xutba ba toogaat ci diggante ñaari xutba yi loo fi ñaan yàlla nangul la ko am ñu ne fi xutba gi commencé ba fi muy sëlmale julli gi loo fi ñaan yàlla nangul la ko am ca ñu ne waxtu mujj ca bésu àjjuma foofa mooy waxtu nangu ñaan wa loola nag moo gën a wér moo gën a doon dëgg laaj nañu Abdullah ibn Salaam jàmbar yahud yi duggoon ci lislaam te raw ci ñaari wàll yépp laaj nañ ko bis istijaaba waxtu istijaaba ban la mu ne mooy waxtu wi mujj ci biir bésu yowmal jumaa wax nañ ne ana lu muy nekkee loola boobu bés te yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ci wax ne laa yuwaafiquha abdun muslimun yusalli yad'u llaha benn jullit bu gëm yàlla boo xam ne dafa pare di julli di jaamu yàlla di ko ñaan te waxtu woowu du waxtu julli bon nu muy nekkee waxtu woowu am na ñu wax loolu ñu ne loolee waxtu la woo xam ne kenn du ci julli kon wartu nekk waxtu woowu mu ne ma ne den xanaa du yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne inna man tawaddaa wa jalasa yantasiru salaata fa huwa fi salaat qaalu bala qaala fa tilka hiya yonent moo wax ne képp koo xam ne jàpp nga toog di xaar julli yaa ngi ci julli ñu ne ko ah kay yonent ko wax mu ne waaw kay mooy loolu <clears throat> ngoon ak àjjuma nga toog jàpp di xaar julli wala ci waxtu woo toogee jàpp di xaar julli sax yaa ngi ci julli kon nag ngoon àjjuma boo toogee julli tàkkusaan des sa njàpp yaa ngi julli kon yaa ngi julli waxtu woo itam waxtu julli la kon la xaqiqati sax jamono yépp yépp yépp saay boo jàppee toog rek di xaar julli rek yaa ngi ci julli loolu la yonent wax kon nag <clears throat> saa soolee mooy suñu yàlla jox ñoom ñi nga xam ne ñooy eh, tënku ci silki Ahmadu Tijaan yi nekk ay Tijaan ndax danañ jàpp ca waxtu woole toog di tudd yàlla di xaar julli timis ba jant bi so alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bindikat bi loolu la wax ñaar jaamul ila sabili rabbika jëm wooteel ila sabili rabbika jëm ci yoonu sa borom bil xikmati ak alquran alquran mooy xikma mooy xam-xamu xikma dëgg ndax mbooleem xeeti xikam yépp alquran dajale na ko wooteel ak alquran jëm ci sa boroom jëm ci ay xatteem wal mawhisatil hasana ak it waaraate wu rafet waaraate woo xam ne du doon gëdd du doon saaga du doon ñaaw jikko wajaadilhum te nga dàggeek ñoom boo demee ba di ko def bii tii ci melo woo xam ne xiya moom axsanu ma gën a rafet boo demee bay kuloo daal na kuloo ba rafet mel ni nga ne ñaanal ca saalum ba saalum di baax nit ñi ñépp di jàng alxuraan di jaamu yàlla di jaamu yàlla xol yépp dellu ci yàlla daawoo dégg mag muy saaga buñ demee ba mere la rek dañ naan xudduusun yaw subuuhun yow bu ko defee fekk boroom mer na torop xudduusun ci turu yàlla yi bokk mooy yow yàlla na yàlla sellal subuuhun yow yàlla na yàlla fii la ci leeram yi loolu moom la woon nit mag ñi xamoon amoon wilaaya ñoo ko daan buñ saaga meraan ba mer bay bugg saaga loolu la ñuy ñaanal ki ñu ki ñu mere bu ko defee mën a mucc ci sànjum yàlla mucc ci ayu merwa ñu dem nag ba nit ñi di réer ba nga xam ne koo ci ne subbooxoon wala xuddoosan da mu wuti yet dal ci sa kaw xamul ne da koy ñaanal réer moo tax baaxul na rabbaka naka sa borom daal hoo mooy ki nga xam ne aalamu moom kenn xam bi man dalla ku réer ne mër an sabilihi walis yoonam bi wa te moom kenn kepp aalamu moo xam bil muhtadina ci ñu jub ku jub yàlla xam na ko ñi réer yàlla xam na leen bu ko defee nag dana fay kum ci mën a doon réeram nga kële itam mbaaxam nga dana ko fay wa in aqabtum gis nga boo demee bay mbugal di fayu ah, fa aqibu na bu ngeen di fayu na ngeen fayu bi misli ma ci kem la nga xam ne uqibtum mbugalee nañ leen bihi ca moom waa ji daal lépp lu mu def booy fay fexeel ba bu ko romb rek lii mu ngi wàcc ba ñu rey Hamsatu ibn Abdul Muttalib rey ko rey gu ñaaw toj dënn ba génnee xol bi yéey ko buusu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam rey gënte ñaaw loolu yonent dafa mer keroog ba ne dana rey juróom ñaar fukki ci xéefar yi ñoom ñépp mel melal leen melawu bon wow yàlla ne ko ah, déedéet màndul nag mandul boo demee ba nga xam ne daal li def yaa ngi koy fayu def ko ni ñu la ko defee rek bu ko ëpp mukk si nga yàlla ngoog jàngal na ko mandute loolu lañ jàngal ñun ñëpp benn waaye wax la lu bon nga wax ko ko ñetti yoon ba ñeenti yoon déedéet bu la ko waxee boo ko mënta muñ wax ko li mu wax rek yem bu la ko defee boo ko mënta muñ yemal ci ni la ko defee naaru gànnaar yi noonu lañ mel loo leen mën a wax dañ naan ak yow rek mu jeex <coughs> wax lu bon dëkkul fa mu jëm fa mu jógee lu dëkk <coughs> boo demee daal ba nga xam ne bëgg ngay melal waa ji daal defal rek benn yoon bi mu la def bu ko romb mukk waaye dem di def ba juróom-ñaar fukki di ngeen di rey def noonu déedéet loolu du mandute yonente bi nag sallallahu alayhi doo ko xam loolu jàngal ko jullit yi wala in sabartum bu fekkee muñ ngeen sax ba bañ a fayu de yi eh, la muñ googu xayrun moo gën foofu li na pour muñkat yi bul fàtte ne jàng nañ ci alquran yàlla mu ne muñkat yi bu leen di fay du leen nattal dara daf leen jël leen lu seen lu ngeen man rek <coughs> dañ ko defee nag yonent bi sallallahu alayhi wa ci la tee fayu gën ak fayatul booba léegi reyul kenn wasbir muñal wa ma sabruka sa muñ nekkul illa billahi li muy ci yàlla yàlla rek moo lay dëppale mbir yi wala taxzan bul tiit alayhim ci ñoom xéefar yu bon yi li muy def bañ a gëm giñ bañ a gëm yàlla bu mu la xërtal mukk ci ngay tiit ndax yow da bëgg ñëpp gëm seen ñàkk gëm bu mu la jaaxal wala takk bul bokkitam bul nekkitam fi duyqin ci ay xat-xat mi maayam kuroon ci pexe yu bon yi ñuy fexe di la ko fexeel man dinaa la dimbale ci ñoom inna yàlla maa lazina mu ngi ànd ak ñi nga xam ne taxaw ragal nañ kéefër ak mooy yàlla walladina nag ñi nga xam ne hum ñoom muhsinuuna ñooma di woy rafetali ci topp yàlla ak muñ ak dimbale képp kuñ mën a dimbale yàlla tabaaraka wa taala àndandoom gi mu ngi ko jagleel ñooñ waa ak ñooñ wilaaya daal wilaaya wëli yàlla ñoom ñoo ñu nga xam ne ragal nañ yàlla seen jëf ñu ko rafetal niñ ko jàngoon démb seen digganteeg yàlla ci jàmm ko seen digganteeg mbindeef yi ci def leen lu baax wax leen ko yërëm leen jox leen jokk leen ci anam yépp looloo tax wali yàlla yi comme ñoom noonu lañ mel ñu xemmem nit ñi di leen ziyaara ndax kuy ziyaara wali yàlla rek fekk mu nekk melowoo xamal ne mu ngi toog ak yàlla te yàlla moom maye rek la sawar jéggale rek la sawar yërëme rek la sawar bu ko defee wali yàlla itam boo di siyaara na nga seet ñuy dund nga siyaara leen waxuma bul siyaara ñi faatu waaye ñuy dund ñoo ëpp njariñ foofu ci ñi faatu ndax ki faatu barke rek la mën a dese waaye kii dund nag moo la mën a jubanti jàngal la yar la orienté la àggaloo la ca yàlla ndax moom waxtu ne mu ngi fi des di xidmaal yàlla ki faatu nag jeexal na ci xidma bi wàccee nañ ko tëdd rek la man fam nekk xanaa barkeem ba nekk fa rek ngay ci barkeelu ziaratu waliyu boo xam ne mu ngi duñ daal moom moo gën fuuf ziare waliyu woo xam ne faatu na suuratul israa yi jeexal nañ nax li suuratul israa yi lañu dugg makka la wàcc ba mu des wa in kaadu la yaftinuunaka ba juróom-ñetti aay yooyu yépp ñoom wàcc ñu makka téeméeri aaya la ak fukk ak benn isra yi nag mooy rañaan moo tax dërs bi lépp daanaka ci rañaan lañ koy def bismillahi rahmaani rahim ñetti tur yi màgg yooyu muy uluhiyatu ak rahmaaniyatu ak rahimiyatu ci lay commencé pour firi euh, saar wile di isra yi buur yàlla na subhaanalladi sell ñeel na buur baa moom asra moo rañaane bi abdihi jaamam balay leen ca guddi lii mu ngi wàcc ci rañaanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca guddi guddig ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rajab muy guddig altine yonent bi sallallahu alayhi moom altine rek la am moom la moom ci altine la juddu ci altine lañ ko yónni ci altine lañ ko rañaanee mu dem ci asamaaw ci altine itam lañ ko génnee màkka mu gàddaay ci altine itam la dugg Madinatul Munawwara gam dëkk tey ci altine itam la faatu euh, moom daal mbooleem jaar-jaaram yépp altine la mboolem jàllantu mi yépp bésu altine lañ tombé mën naa am sirru bi ci loolu mooy yonent bi mooy ñaareelu xadara bi comme mooy ñaareelu xadara bi ndax altine mooy ñaareel ci bés bi wax naa ne bés yàlla liggéey mu ko commencé dimanche altine mooy ñaareel bi xadara bi yàlla bi itam bi mu feeñee li njëkk feeñ mooy yonent bi mooy ñaareel bi kon loolu loolay junji yonent bi sallallahu alayhi fanaan na ca bayti ummu haani uxti ali ibn abi jigéenu Ali Taalib moom la fanaan ca néegam mu ko demee nag mu nekk ci diggante ñaari gaay ñaari góor fu muy nelaw rek ah Seydina Jibril ñëw yee ko nelaw yi sax guddul daa di indi nag ba mu ko yeeyee mu jog mu indil ko daaba joo xam ne moo gétti mbaam moos waaye agul ci fas fëgg yonti mu jog mu tëral ko xotti xol bi jël maa u samsam ndoxum samsam raxas ko mu set wecc bon raxas ñaareel gàngoog ndax raxasoon nañ ko ca ba mu doon nàmp ca alimatu saadiya malaaka yi jibril fekkoon na ko foofu raxas ko fi lay itam raxasaat na xol bi na rabbaka bu ko defee nag mu ne ko sa borom moo lay woo pour teral la teraanga joo xam ne masu koo teral kenn ku la mas a jiitu fii ci kaw suuf loolu yonent ma ko wéral boo demee ci ruuxul bayaan yow mi ko bëgg a topp da ngay seet jusul xaamis ba maanaam cinquième tome ba bu dee tubaab nga jàng nga seet page numéro 106 da ca fekk wax jooju waadi bu ko defee daaba joojule nga xam ne moom lañ ko jox mooy waruwaayam bi nga xam ne gaawaay ba kenn mënu ko natt fu bët ba tegu rekk wewu tànk ba dëgg fa yonent bi nag bi mu jógee bu koy war sallallahu alayhi wa sallam jibril euh, euh, daaba ji commencé di bajantu ndax indi nañ ko ci alam boo xam ne xamu ko jibril na ko yow daaba ji na nga dal te ànd ak yar xanaa xamoo kii lay war yarul ci kanamam ba ma xeloon nag yonent bi sallallahu alayhi wa di sëgg am kersa trop nit ku mag gis nga soo ko joxee daayira da gis mu am kers kersa nga yóbbu ko ba mu ñàq ñàq wa di génn di tuuru mel nii nda maa ul war bi wala ñu ne daaba gi moo am kersa googu lu mën a xew kersa feeñ na fa yonent bi nag daal di ko war sallallahu alayhi weewa dal ca baytil maqdis ba ko bët ba tegee rek mu wàcc fa siblak saala seydina jibril daal di wàcc gas ba jot lam bi nga xam ne jaaro bi nga xam ne fa la yonent yi daan takk seen daaba yi mu yeew fa àll eh, alburaq mi nga xam ne moom la yonent war gis nga alburaq lañ ko tuddee buraq mooy lu gaaw ba mel ni melax fax rek lay def jàll yonent dugg ci biir jàkka ji fekk fi anbiyaa yeeg mursaluna yépp ñi ñu yónnee ñi yónniwutoon ñépp mu ngi sàppe di ko xaar mu dugg daal di julle leen jiite leen ñu julli ba mu jullee ba pare nag nekk seen imaam daal taxaw nag ca doju ca kaw doj wa <coughs> doj wam taxawoon doon leen ñaanal di tàggook ñoom boo ba demee boo demee ba tey tànkam baa nga marqué ca doj wa moo tax ñuy siyaar ji baytul maqdis yépp bu ñu demee foofu lañuy dem siyaare yahud yi nag ñu ngi nekk ci mbon goo xam ne ñu ngi koy xaccoog jullit yi ba taal fa ayu sa ayu guerre boo xam ne léegi tey mu mat eh, juróom-ñett fukki at romb na juróom benn fukki at ñu ngi koy xeex ba léegi sax dëkk boobu di baytul maqdis teg nañ ko loxo waaye xeex baa ngi continue bés bu yàlla sax ñu rey fa ay nit bu ko defee nag ba mu toogee pare na ci julli gi ba toog war a dem aw mar la ko yàlla sóob mu mar lool ne man dama mar sax ñu indil ko ndox ñu indil ko euh, euh, sàngara indil ko soow mu jël soow ma naan ci ba mu des tuuti mu teg jibril ne alhamdulillah tànn nga fataro bi tànn nga bindere bi nga xam ne ci la yàlla bind nit bu juddoo soow rek lay naan bépp luy dund sax am ruuxu bu juddoo rek soow lay naan seeboo di nit mbala muy rab mu ne ko gis nga boo naanoon sàngara sa xeet wi ñoom ñépp danañu murtat waaye gannaaw soo mi nga naan rek baax na soo ko naanoon léppi nag amatul kenn ku ci doon yéefar sax ñëpp dañ gëm yàlla yonente ne a ñu ne waaw comme moom ku bëri yërmande la bëgg ñëpp mucc mu ne indi leen ma li des jibril na ko dee jafati jafatil xalam mu ne ko ah, yàlla kat dogal na ko ba pare foofu daal la mën a yem bon nag ci lañ déggee ne fokk am ñu mucc gëm yàlla fokk ñu am ci ñu torox weddi yàlla bu ëllëgee ñu dugg safara yàlla na yàlla boole ci ñuy mucc noonu nag la yàlla subhaanahu wa taala tabaraka dogalee mu demee noonu ñii di jullit gëm yàlla ñii di xéefar weddi yàlla rekk mu jeex ci foofa nag lañ koy indilee alburaax mu daal di yéeg ca kaw war a départ nag jëm ci juróom-ñaari asamaaw yépp yonent bi sallallahu alayhi wa fanweeri yoon ak juróom lañ ko rañaa la rañaane yu bari ci ay gént la koy def gént ñuy bukk ba mu génn alam bi loolu moom aarifi ne yaa ngi koy def ba léegi la nga gis koo xam ne kii dafay gént di naaw ba génn jaww ji di naaw ba génn asamaan si naaw ci jaww laa li joo xam ne xamul fu mu ne ba léegi-léegi nii nettali ma ko am na xale bu nekkoon fii sax di jàng dem na may nañ ko fi wér di tarbiya ko fi jàngal ko alquran jàngal ko yépp léeg-léegan mu xëy wax ma ko boobu mu ngi ci xaal yooyu danañu def na ko lu baree bari ci ay gént daan nañ ko rañaane itam yóbbu ko ak ruuxam ruuxu gi dem moo tax ruuxu nag fa muy àgg gént moom dafa fa àgg bile yoon nag moom yàlla dafa ñëw jël jëmm jaag ruuxu ga yépp yóbbu leen mooy israaw boobu nga xam ne moom la yàlla di nettali moo tax bu yàlla ne subhaana alladi asra bi abdihi maa ngi tudd yàlla mi nga xam ne moo rañaanee jaamam ba jëf jëm jëfi rañaan nga jóge kool ci yonent bi déedéet mu ngi jóge ko ci yàlla yàllaa ko defal yonent bi